mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant saa su nekk comme ni ñu koy defee rek ñu dikkaat ak yéen nag ci seen euh, beneen numéro euh, li ci diaspora bi li ci jasporaa bi ni ngeen ko xamee nag ma koy def ak euh, Baye Diouf saa su nekk.

waxtaan faram-fàccee li nga xam ne moo xew ci euh, réew mii ñu dëkk ak réew mi jógee pour mën ci indi ay leeral. jërëjëf Baye Diouf euh, ci ni nga duggee euh, laata nag ñuy tàmbale waxtaan bi dañuy seetaan rek ponk yi nga xam ne moom la ñu war a faram-fàcce tey ci seen émission li ci diaspora bi. tey nag ci seen émission li ci diaspora bi gën na ci fës ponk yi. xetum jangoro gi nak di euh, coronavirus tambale nak ci réewum Chine di wéy nak di law ci aduna gi ndax suñuy réew yi jël nañ ci ay matukaay yi war mu di rek luñu di waxtaanee tay ci biir émission bi gannaaw ga nag danañu ubbi ab waxtaan ci kàddu yi wa communauté sénégalais yi nekk nak feulé ci kalabria calabria addu nag mu waral ko nak juroom ñaari doomi réewum sénégal yañ fa jàppoon ci opération mafia ga fa amone ci wér yi ñu génn danañu waxtaane it daara gi ñu tëj ci diwaanu Monza fii ci Italie ak ban taxawaay la war a am ci mbir yi ni mel. di tëjee waxtaan gi nag ak élection yi amoon na ca diwaanu Emilia Romagna ndax rek mënees na indi ay coppite ci mbébétub maayeb kayit sénatorial gi ñu fi doon coow waaye it dinañu ubbi ab pàcc gu rëy ci lu jëm rek ci fake news yi maanaam xibaar yu tegwul ci dëgg yaatal gi gannaaw bàq gi lay doon. Euh, jërëjëf euh, ngooti euh, ci boppu ponk yi nga xam ne rek moom la ñu war a faram-fàcce tey ci li ci diaspora bi bi ci njëkk nag comme ni ñu ko déggee Baye Diouf mu di rek décès yi am fii ci suñu biir communauté ci communauté sénégalaise bi fii ci Italie xam naa xam nga bu baax naar baabu bi nga xam ne génn àdduna peut-être rek xanaa nga am témoignage boo xam ne war nga ko mën a joxe ci moom laaj nag ñuy dugg ci ñeneen ñi nga xam ne vraiment génn nañu àdduna te dëkk fii tamit ci Brescia. waaw comme euh, ni nga ko waxee euh, Augustin wax dëgg yàlla jour yi ñuy génn euh, xaw na tàng ci suñ biir communauté bi ndax ay nit yoo xam ne génn àddina nekk ci biir communauté bi évidemment àddina nag moom looloo ànd dëgg la tudd nga nag kenn ci ñoom mu nekkoon nit ku baax ñu koy wax naar baabu ñing mhm. wax dëgg yàlla mu mérité woon nag euh, hommage de toute la communauté sénégalaise. fii ci eh, Italie mais mm-hmm. surtout nag ci waa Bergamo. dëgg la yàlla def na ku baax la woon man xam naa ko ku yaatu la woon ku bëgg xeet sénégalais ba noppi nag euh, ku bëggoon tamit communauté sénégalaise bi dox yu jëm ca kanam. Mm-hmm. mu oyofaloon bop nak wax deug yalla bu doy war parce que ma ngi fàttaliku man euh, en 2009. Euh, Fazni, muy fédération association sénégalaise yi nekk ci Italie. Mhm. Euh, dénkoon ma ben organisation ay culturelle bo de recueil de fonds. Mhm. boo xam ne ñu ngi engagé won Titi mu def concert. Mhm. bi concert bi jeexee nous ñu am beneen dëkk bu ñu euh, waron del su Italie pour dem Venise pour jël feu avion mais xaw ma nu won, ñu station centrale guddi xamuñ fi kenn. Hmm. te nañ gaaw ku Venise pour ñu jël fa avion. bañ raté avion. Euh, ak suma xarit euh, wax Adama bi affaire bi ñu ne pare biñ ko ko gratuitement mu soxla station centrale Venise. Hmm. loolu yëpp ci mbaaxam. wax dëgg yàlla euh, man mbir mi euh, bi mu ko déggee loolu mu def dama ci dama cee kontaan ba noppi wax dëgg yàlla di ko ci gërëm yàlla def na génn na àddina waaye mbirum suñuy tey suñuy wax tey mbirum communication communicateur traditionnel euh, traditionnel dans la diaspora te ñoom tey ñiy représenté ñoom ngooti Mbaye <laughs> nekk ci mhm. su ma yeboon ne naar baabu ci ñu ko lancé ci diaspora bi la bokk mhm, mhm. loolu mooy tradition la nga euh, suñ tradition mu ñëw indi ko Italie mhm. euh, mbirum làmb suñ koy wax tey su amee benn sens naar baabu euh, ak xarit ak frère am Ibrahima Mbuub ci ñu ko lancé ci dëkk bi ba tey édition de lutte bi xew bergam Bergamo ci gën a mag ci gën a siiw ci Italie kon nag su yàlla defee ñu bokk ñun bokk ci communauté bi gis ku baax génn àddina dañuy def da rek di dul di ko ñaanal ja yàlla eh, jàmm. Mm-hmm. ba mu yegg ca Firdawsi. Eh, di ko ñaanal famiyam di ko ñaanal xaritam yëpp yi nekk foofu ak moom ca Bergamo am na soom benn xarit sax bu lancé woon benn idée ci Facebook. Mm-hmm. Matar Diop que centre culturel bu Bergamo. dañ ko war tuddee naar baabu. dëgg la loolu moom mu daanaka bu baax mu nekk idée bu bu rafet. bu rafet bu rafet ndaxte comme ni may wax rek communauté day am place. Mhm, mhm, mhm. <laughs> waxoon naa ko fi. fu ñuy suñ place ke communauté day xewle ba am place yi xewle. comme foofu nag mooy suñ place xewle bi gën a mag. te naar baabu bokkoon ca association boobu. liggéey fa lu baax foog naa ne tuddee ko ko dafa da lu rafet la. dëgg la xarit idée boobu suñu xarit Makhtar Diop. Makhtar Diop nekk ca Milan waxoon ko. Euh, lu ñuy gën a fësal la waaye luñ ko mën tudde tuddee naar lim def ci communauté bi kenn mënu ko koo fay. dëgg la dëgg la du question fay ko sax mais. Mhm. di ko fàttali lu rafet la ci biir communauté bi. Mhm, mhm, kon nag euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla daal euh, ca foofu mu tëdd ci Touba yàlla boole ko ci ay nitan. ca fa place yi gën a yu yàlla yi gën a. yi yàlla dugal ko fa am nañ yaakaar na dina fa dugg parce que lu baax rek lañ ko xamee. dëgg la euh, jërëjëf Baye Diouf ci témoignage bu rafet boobu nga indi rek euh, ci nga xam ne mooy euh, Narba bu tey génn àdduna. Hmm. di ko jaale ay mbokkam di jaalee aussi ñëpp ñi nga xam ne rek xamoon nañ ko bu baax a baax man ñi sax jot naa liggéey ak moom ci Diaspora 24 ci émission yi fa doon amal. ci ponk nag bu njëkk bi dinañu waxtaane nag ci nga xam ne moom mooy euh, feebar bi nga xam ne moo lëmbee àdduna muy euh, jàngoro jooju ñu tuddee coronavirus. Mm-hmm. Euh, mu tiital nag daanaka àdduna bi bépp te ñu gis ne feebar baa ngi tàmbalee di law mm-hmm. ba mu tàmbalee fële nag ca réewum Chine. Euh, yan leeral nga ñu mën a indil bàyyi ci euh, feebar boobu euh, ci ni nga ko jàngatee rek ci ayu bés bii ñu génn ci journaux yi fi waaw xam naa am na élément boo ci war dugal xam naa ah. bu expliquer feebar bi mais li ñu ciy wax rek mooy commencé ci tur bi corona mhm. virus virus moom ñëpp xam nañ ne ci xeeti microbe yi la bokk mhm. yoo xam ne am na ci yu soxor yoo xam ne day sono nit ñi dëgg Euh, li tax ñu tuddee ko corona mooy dafa am forme couronne. couronne loolu tax ñu tuddee ko corona. parce que corona ci italien euh, euh, mooy couronne. mooy couronne waaw. waaw mais français yi sax xam naa norme d'origine latine la. moo tax ñu naan corona parce que forme. forme virus bi la jàngoro ji daal nu mu. waaw mhm. liñ ci mën wax rek moo di avant loolu yeneen virus yu mais SARS bi ñu doon wax. Mhm. ay 2006 2007. mu nekk nag loo xam ne ñu ne comme ni ko élément bi waxee. mu ngi jógee ci Chine. Euh, mbir mi nag fi mu nekk ni jaaxal na àddina yëpp Italie gii ñu dëkk. Euh, bërki demb ñaari cas feeñ ne feeñ nañ ci Rome. dëgg la muy benn couple chinois bu jóge woon région bu ñuy wax Wu Wuhan. foofu ca Chine. fi fi jàngoro ji tàmbale. fi jàngoro ji tàmbale parce que nekkul ne Chine yëpp la nekk. mais benn partie bu nekk à l'est de la Chine la. benn région foofu la jógee. Euh, donc Italie ñaari cas feeñ nañ fi bërkaati démb. mu nekk ñu jóge woon ci région boobu ñëwoon fi vacances ci seen hôtel ba. Euh, lañ ne benn hôtel lañ nekkoon mais jotoon nañu wër dégg nañ sax Malpensa la ñu wàccoon. d'accord. Euh, ñu ci bëri nag jaaxle ci tiit ci ñun en tant que immigré lu ñuy wax mooy foog naa ne am na ay doomu sénégalais yu nekk foofu tamit ci Chine. ci Chine ay ay ci bëri bëri sax ay immigré ak ñi nga xam ne dañuy def commerce. daal ay ay immigré. te dégg naa maa ngi gis keroog suñu xarit euh, Boubacar Seye. Mhm. di ci def appel. Mhm. pour gouvernement Sénégal dimbale leen. ñu gaaw mën fa jógee parce que feebar bi dëkk boobu fi mu nekk nii ku ci nekk yaa ngi masqué wu tout pour bañ feebar bi. dëgg parce que virus dafa gaaw. ni mu mënee dugg ci nit dafa gaaw. nu muy wàllee daal moom moo xaw a. gaaw ni muy moo moo mais nag euh, comme ni ko gouvernement italien waxee bañ cee def alarmisme. maanaam am na feebar yu gën a rey nit ñi ci dëkk bi lu mel ni grippe. ñu koy te chaque année nit ñi loru ci. te feebar bi pour mu dal la il faut que nga nekk en contact. ñoo xam ne ñu ngi jógee Chine. évidemment euh, gis nañ impact bi mu am ci communauté chinoise fii ci Italie. Mm-hmm. parce que soo demee tey euh, Paolo Sarpi muy China Town bu Milan. bu Milan fii chinois yi gën a bari daal presque seen kenn gisut kenn duggutu fa. dëgg la dëgg la leen di daw. dëgg la euh, restaurant chinois yi nekk Milan chinois yi nekk Milan ak yi nekk Rome kenn dematu fa. dëgg muy wane rek mbirum impact. Euh, communauté ethnique. Hein? lu xew ci rek dañ généraliser je uh-huh. wax sénégalais yi déglu rek train bi ngi ay ay italien yu takk ay masque tàmbale ay masque comme comme tàmbale ay masque li pour que su surtout bu métti la ak euh, euh, voie respiratoire yuy bloqué wu ak grippe ak feebar feebre li ñu fièvre alta kum ci dal rek nga gaaw dem hôpital euh, waaye nag bañ ci alarme bu moom bañ ci indi alarmisme bu mag daal dëgg la dëgg loolu lañ loolu lañ ci mun a wax uh-huh. di ñaan aussi suñ gouvernement Sénégal parce que chinois yi xam nañ ne wax dëgg yàlla li ñuy dem ci Afrique bëri na dëgg la euh, gis nañ ni ci gouvernement européen yi jógee mais déggatuñ dégguñ ci ba léegi. benn gouvernement africain bu ci jóg wax ci. pour que parce que euh, ñun gaa en tant que africain yàgg nañ problème yooyu ñu am ko comme affaire Ebola ba fa amoon. dëgg la dëgg la te réew yu bëri commencé woon tiit ci Afrique waaye nag tey Chine la jógee ñu nit war nañ sans ñu créer benn alarme nationale mais au moins ñu jël ay matuwaay parce que bi mu amee Italie bi mu feeñee Italie sur le champ. premier ministre bi ak ministre de la santé. def nañu ay communication non dañoo def kañ conférence de presse. dëgg la dëgg la. ak ak professeur de mé de médecine bu aay ñu toog leeral mbir yi. dëgg loolu nag fan naa lu ñu war la Sénégal. Euh, parce que waa waa Chine dañuy dem Sénégal ak a ñëw. dëgg la dëgg la chinois yaa ngi fépp laata sax ñuy xuus di di wéy ba léegi ci waxtaan bi ci jàngoro jooju di coronavirus. dañuy dem rek seetaan benn éliment gën a xam nag lan mooy euh, feebar boobu laata nag ñuy dellu siwaat ci euh, plateau bi. fa yéene ñëw tey rek waxtaan ak yéen ci benn actualité sanitaire bu xew si àdduna bi ñu koy wax coronavirus. lan mooy coronavirus coronavirus ay njabootu virus lañ. di jàpp lu si ëpp nooyukaayu doomu aadama bi ñu leen di wax euh, virus respiratoire. coronavirus nag euh, yàgg na am ci àdduna bi euh, depuis année mille neuf cent soixante yi waaye jamono yi nag dafa euh, am benn flambée fële ca Chine ci benn dëkk ba ñuy wax Wuhan nga xam ni fa la virus bi réapparaître ci beneen forme ñu tuddee ko 2009 tiré NCOV lu tax ñu naan ko coronavirus nag mooy virus bi boo xoolee forme bi dafa xawoon duroog couronne naka la eh, bi di dokolante wo corona virus nak mi ngi tàmbalee ci ben dekk bu ñuy wax Wuhan nek ci Chine ci joge ci ay mala ñu leen wax transmission animal dem ci doomu adama yi ci la joge par la suite ci doomu adama yi di walante sen bir ñu leen wax transmission interhumaine ñu kay walante ci ay ay sekkat ak ay tuflit ak ay likit yu bawo ci doomu adama bi dem ci benen doomu adama transmission entertainment bobu nak mom mo waral mo commencé law ci aduna bi ci dekk yu bari nata le febar bi di feeñee ci yaramu doomu adama bi febar bi nak danaka buy tambali day nduroog xetu grip ndax day japp yaram bi muy tang yaram bi di metti ngay liw di sekkat di am ay bop yu metti yaram bi di tayal ba jàpp biir bi dem ay biir yu daw ba ci jàpp nooykaay bi ngay am ay jafe-jafe pour nooyi ak yeneen li waral feebar bi grave nag mooy bu weesoo forme gripal simple bi ñu décrire mën na évoluer ci yenn forme yu gën a sévère lu ci mel ni joxe benn syndrome bu ñuy wax syndrome de détresse respiratoire aigu nga xam ni day jàpp nooyukaay bi ba doomu aadama bi dootul mënati nooyi bu ñu ko gaawal traité rek mun naa yóbbu bakkan doomu aadama bi. ba fii ñu toll nii nag amagul traitement spécifique boo xamante ni moom moo am ngir faj coronavirus bi waaye teewul ni OMS ak ñi si war a lëkkalool yëpp ñi ngi liggéey ngir génnee vaccin bi ngir mën a traité coronavirus bi. waaye laata ñuy àgg foofu nag mbir mu ñu def mooy di traité si ñi nga xamante ni malade bi mi ngi koy amee muy traitement symptomatique ak fexe jàngoro ji bañ a law si ñeneen li ëpp solo nag mooy naka la ñuy méttoo jàngoro ji di coronavirus mooy di fexe di sàmmonteeg règle d'hygiène yi rek ci raxas suñuy loxo bu baax a baax ak ndox ak saabu ak lu ci mel ni eau de javel wala alcool. di moytu di nekk en contact direct ak ñi amee feebar bi di tamit togg ñam yi ba muy ñor li ci mel ni ndawal yeeg nen yi ndax feebar bi yu si bëri ci mala yi lay jóge bu dee si ñi amee feebar bi tamit i couvrir seen bakken ak seen gémmiñ saa suñuy sëkkat wala ñuy tisooli ak mouchoir tey moytu di jaxasoo ak nit ñi bu baax a baax ginnaaw loolu képp koo xamante ni jàngoro bi mi ngi commencé feeñ sa yaram nga fexe dem l'hôpital si lu mu gën a gaawee bu ko defee ñu jël la en charge. voilà Baye Diouf comme ni nga ko gisee euh, explication yi daanaka leer na ci euh, xeetub jàngoro bi ñuy wax euh, coronavirus waaye laaj bi mooy ndax ñun suñuy suñuy gouvernement yi. Euh, tàmbal nañu di jël matukaay yu war balaa muy law aussi ñun ci suñuy réew yi. Mm-hmm. suñuy réew yi comme Sénégal euh, nga xam ne peut-être dëkk Europe yi moyens yu ñu am ñun amuñu ko daal pour euh, xeex ak feebar bu mel noonu mu muy bañ di law daal ci biir askan bi. waaw jërëjëf. dama koy rafetlu genre élément. sensibilisation de information yi nii. information pratique. mooy li xaw a manqué suñu réew. ma te loolu comme ni ngeen ko xamé man ci lay yàgg di yëngu. Mhm. Euh, information de pratique mais aussi pour sensibiliser. wax deug yalla kiko defar xawmako euh, personnellement mais suma ben boy bu nek euh, Calabria moma yone element élément bi ma gis ko ci Facebook jallale ko donc ñu jallale ko ni ci ci diaspora donc. Euh, di ko ci gërëm aussi bu baax. parce que danaka nu mu ko nu mu ko fram fàccee danaka leer na. exact te yu mel noonu dafa waroon suñu gouvernement bi. Mhm. Euh, gouvernement <laughs> ci pour rejoindre sa question bi. d'accord euh, parce que yenn yu jaxasoo yi su amee. il faut information boo xam ne day leer nit ñi comprendre. Mhm. Mhm. xam yan matuwaay lañ ci mën a jël. dëgg la donc loolu ci mbirum média dafa manqué Sénégal. te loolu wax dëgg yàlla ñu ñu ci liggéey ñun depuis des années fii ci diaspora bi. te su ma sañoon ni ñu koy liggéeyee euh, di ko joxe suñ façon pratique. Mhm. mu am Sénégal ñu gën koo développé. Mhm. parce que yu ci bëri nit ñi dañuy dégg rek. te duñ xam di ko reprendre di jël ay matuwaay yoo xam ne. dëgg la te te kenn xamul donc information pratique lo surtout nag ci làkki wolof. Mhm. parce que bu ci bëri ay français lañ doon def. mais léegi toll nañ foo xam ne nag surtout réseaux sociaux yi bi mu amee wol làkk wolof bi dafa gën a am doole. parce que léegi nit ñaa ngi bind en wolof nit ñaa ngi wax en wolof muy tasaaru. kon nag dañoo war lépp loo xam ne ci mbirum xam la rek xam-xam rek. ñu faram fàcce ko. loolu foog ne gouvernement du Sénégal loolu waroon njëkk def. jël ay ministre de la santé bu Sénégal wala premier ministre ñu dem télé expliquer. malheureusement gisuguma ko xaw ma ndax lu am la peut-être ñu ngi koy préparer. feebar bi ñuy wax coronavirus kenn trouvé wul lu koy faj. maanaam vaccin bi daal. vaccin bi génnagul. ñun ñu ngi naan ay médecin australien, ñu ngi ciy liggéey. Euh, pour gaaw trouver ko mais nag comme nekk na loolu waroon na nekk loo xam ne wax dëgg yàlla sur ces maladies là te ñu naan ci rab yi la jóge wala ci jën yi ci géej gi mais yooyu yëpp euh, parfois da ngay dafa doy waar daal parce que parfois dafa mel ni aussi manipulation da ciy am. dëgg la euh, virus yooyu kenn xamul lu muy juddoo. wax dëgg yàlla lu ñun pays africain yi su ma sañoon daal mooy ñu jël ci ay matuwaay surtout nag expliquer xool nit ñi yan matuwaay la ñuy mën a jël pour échapper ci loolu. parce que si mu so nii Sénégal soo Côte d'Ivoire soo demee foo de chinois yang ba ci de mhm. suñu exploitation forestière chinoise. donc te région Wuubaat boobu c'est une grande région industrielle bo xamné euh, chinois yu bëri dañ fay jógee di dem ci àddina bi. dëgg la donc loolu dal la ci mënon wax quoi. mu melni rek né Sénégal sax xaw nañu tàmbale di ci jël ay matukay mhm. danaka bo démé ci aéroport bi comme déjà frontière yi ci le fièvre bi di gën a mën pour dugg ci dëkk. Mhm. Mm, tambalé nañ fa di def ay caméra thermique euh, pour nit ñi dal bu ñuy dugg ñu mëna xam seen température parce que amna ben niveau température bo xamné bo fay fay dal mhm. euh lu suspect la il faut ñu xol la càmbar. xool ndax am nga virus bi am am am déet. kooku c'est une bonne initiative cordon sanitaire ngay wax. def ko ci aéroport yi tamit lu baax la. Mhm. Mhm. cordon sanitaire waaw. voilà donc euh, jërëjëf ci leeral yooyu ngay indi ba tey euh, bu ñu desee ci euh, xeetu feebar boobu mu mel ni am na benn impact boo xam ne am na ko aussi ci la communauté chinoise. Mhm. parce que tamit nit ñi ba dafa mel ni léegi am dafa am lu ñu di xoolee dañ leen di daw wala leneen moo ngi ci biir daal. ba tey sax ci Rome am na benn baar boo xam ne da ci def cartelo maanaam da ci def benn affiche bind ci rek ne euh, chinois yi droit pour dugg fi. Mhm. Mais ni chinois en tant que tel ñom ñoy ñom ñoy lawal ñoy lawal mbir mi ñoy lawal mbir mi. tout à fait ignorance le rek. Mhm. parce que nag euh, nek chinois taxul nga am fièvre bi. deug la euh, c'est vrai que fièvre bi c'est dëkk la jógee mais Chine comme li ñuy wax né presque un milliard de personnes lañ. Mhm. te pour le moment foog naa ñi ko trouvé gu motugul motugul 1500 donc. nu ñu koy waxee sinophobia bi juddu. Mhm. maanaam bañ chinois yi. Euh, bi juddu ci réew mi ak asiatique yi wax dëgg yàlla euh, day wane rek euh, niveau de niveau d'ignorance bi nga xam ne. Mhm. parfois peuple bi fii ci Italie foofu lañ toll. Mhm. chinois yi am na sax ku ci def benn it sum benn xarit italien bu ci def commentaire ci Facebook bi ma reprendre ko donc chinois yi fii ñu ci bëri fii lañ juddoo sax te gis nañ ay chinois yoo xam ne. presque italien lañ gën a comprendre Italie lañ gën a xam sax seen réew. seen réew dëgg kon nag nit euh, jaune rek wala bët yi euh, bët yi mandorle rek nuñ koy waxee ci italien bët yi tiiréew rek nga nga ne nga koy daw lu du lu rafet. dëgg la te nag loolu la ñu war a xeex euh, mais nag day wane tamit ñu en tant que communauté africaine ñu war cee xalaat jël ci ay ay ay yoon yu jaar yoon maanaam. éviter ñu ñuy mbëmb suñ communauté. Mhm. parce que lu kenn def rek presque dafa mel ni. loolu mooy euh, le paradoxe <laughs> euh, de l'immigration mooy lu kenn def ci communauté rek dañ koy jéem a. généraliser donc moo tax képp ku ci nekk lépp looy def rek. Euh, war nga ko xoolaat balaa nga koy def waaye ku yaakaar ne yow ci sa bopp rek ngay toppatoo mu jeex doo faale leneen ko ñi nga bokkal communauté bi da nga juum. dëgg la man leçon boobu te wax dëgg yàlla. suma xarit chinois yu bari dama leen yërëm fi mu nekk nii maa ngi ñu ngi presque ñu ngi ruus di laqatu te loolu wax dëgg yàlla rafetul waaw du lu rafet te chinois yi wax dëgg yàlla waaye nag wax dëgg yàlla ay liggéeykat lañ parce que restaurant yi ëpp fi mu nekk nii Milan ak li ko wër chinois yi ñoo ko yore fi mu nekk nii te nekkatul nekkatul sax cuisine chinoise la ñuy def mais léegi cuisine italienne la ñuy def di ko def bu ci yoon wu ci yoon wu jaar yoon xanaa duñ def dara rek di indi solidarité ak la toute la communauté chinoise mm-hmm. euh, d'Italie di ñaan aussi que mbirum feebar bi ñu gaaw trouver vaccin bi pour mbir mi mëna dal parce que wax yalla euh comme comme bi <laughs> dina ci xawa daanu comme comme rew mi mais comme comme adina bi ci affaire yi Euh, coronavirus bi nii. jërëjëf euh, Baye Diouf ci leeral yooyu nga jotee indi ci xeetu jàngoro boobu di coronavirus euh, te mu lëmbee jamono ñëpp di ko coow un peu partout laata ñu ngi ñuy dugg ci beneen ponk waxtaan bi mu jëm rek ci kaddu yi waa association sénégalais yi nekk Calabria fa lay yëkkati. Mhm. te mu jëmoon rek ci juróom-ñaari sénégalais yi nga xam ne jàppoon nañ leen fa ci opération mafia bi nga xam ne amoon na fa donc ci weer yii ñu génn dañuy dem rek seetaan benn page publicitaire. radio defaral suñu toutes les informations pratiques pour émigrer et voyager tranquillement radio defaral suñu pour radio Bileral Bibi Chibar, Architectal, Radio défaral suñu mon ngeen mën ko am nak internet ci google podcast wala apple podcast wala bok ngeen rek télécharger ci google play application gi di Radio défaral suñu Radio Radio Défaral toutes les informations pratiques pour émigrer et voyager tranquillement Radio Défaral suñu radio Bileral, bi architectal bépp xibaar comme ni mu ko waxee sànq rek euh, dinañ ñëw nag euh, ci communauté sénégalaise bi nga xam ne moo nekk fële ca Calabria ayu bés yi la ñu génn nag euh, daanaka defoon nañ fa opération mafia bu rëy te ñu jàppoon ci nag juróom ñaari doomi réewum Sénégal

wala su yegsee ci ñag bi tamit nañ ko yemale fofu effectivement ku ku xam Calabria xam ne wax dëgg yàlla mooy région euh, bi nga xam ne euh, euh, mafia bi ñu ooyee Ndrangheta foofu la juddoo. am fa doole nag. Mhm. te ñu ngi jéem tous les circuits de l'économie. Mhm. yàlla def na donc procureur anti mafia bu Calabria ci enquête buñ lancé woon daaw concerne parce que benn sénégalais bu ay mbokk sénégalais sonaloon mu dem euh, dénoncé leen ci auprès des gendarmeries de la gendarmerie des carabinieri de de Calabria procureur bi def lancé enquête am. maanaam lépp daal foofu la tàmbalee. lépp foofu la tàmbalee. Mm-hmm. ci ci dénonciation boobu. Mm-hmm. Euh, euh, ñu gis ñoom ñu gis ne euh, dafa am ay sénégalais ñu ci arrêté rek duñu ay sénégalais mais arrêté nañ ci italien yu bëri presque soixante dix personnes ci biir yooyu am na à peu près sept yu ci bokk. ñu ci bëri sax ay mag lañ. parce que am nañ cinquante ans jëm ca kaw. muy ñoo xam ne dañoo nekkoon ci nord bi seen âge peut-être amatuñ fa liggéey ñu wàcc ci ci sud bi ci Calabria di liggéey ci affaire yi tool yi. gis nañ sax ne ñoom ne dafa mel ni structure organisée parce que am nañ sax benn chef ñu ngi film yi ñu ngi ci Facebook ñu ngi ci internet bi vidéo yi ñu gis suñu yeewoo euh, su jootal chef bi <laughs> nuyu ko dugg ci bus euh, dugg ci seen fourgon bi mu yóbbu leen ci ci tool yi. ci tool yi loolu ñuy wax caporalisme fii ci italien mooy li ñuy wax euh, intermédiation illicite dans le monde du travail. manam di liggéey lo nit ki ba di ci am waaw manam nit ki eh, eh, comme niñ ko waxé won moy borom tool bi moy soxla ay nit waaw eh, am italien yuñ ko jox italien yoy jël ay sénégalais sénégalais nga xamne ñoy jël nit ñi fay nit ñi fay leen pour ñu indi leen ci tool yi ci seen fourgon yi mhm. ba nopp heure de travail suñu war leen fay war a fay 4 heures chaque heure ñoom ñu am ci 50 centimes d'accord muy xaalis bu bëri nag dafa mel ni ñooñu wax dëgg yàlla xaalis bu bëri la ñuy gagné ci kaw ay liggéeykat te loolu képp lépp lu touché ci mbirum travail euh, dafa am ay normes yoo xam ne dañ ko waaye dañ ko définir. parce que mbirum liggéey dafa sensible ba nga xam ne suñ deful nànk rek mbirum exploitation da ciy dugg. te loolu Italie ak réew yu bëri dañ cee jël ay matuwaay. donc munoo nekk euh, intermédiation dans le monde du travail sans que loi bi jox la autorisation. Euh, fii fi suñu wax intermédiation dans le monde du travail agence de lavoro yi la ñuy wax muy agence de travail euh, intérim agence d'intérim intérim. wax coopérative yi coopérative yeeg euh, ak ak surtout nag agence de travail yi quoi. Mhm, mhm. muy mel ni ADECO yu mel noonu. Mhm. ñooñu rek la loi bi ma jox autorisation pour ñu def ko manam nga ci lii nit ki di liggéey nga am loo ciy gagné. loolu ñooñu rek la ko am te ci ay conditions yu précises. dañ ko teg daal ci ay ay ki daal ci ay base <coughs> léegi nag donc xam nañ ne suñ mbokk africain yu bëri euh, parfois euh, soo demee aussi bien Calabria mais soo demee Puglia euh, même dans le Veneto même ba ci. Lombardie gi sax dafa am ay africain yoo xam ne dañuy def intermédiaire maanaam ñoom ñooy indi nit ñi ba nopp di ci gañe xaalis te loolu jaarul yoon parce que exploitation lay nek te mbirum transport lu melni dugal fourgon bu quatre personnes wara def nga def ci 15 personnes te xam nga te ñep ñu ngi fàttaliku daw amon na ñu ci gañu won fele ci Poulia ba ay suñ mbokk yu bari accident. accident waaw accident ba lu lu motoon ay dix personnes gañu ci amon na sax fa naa ay sénégalais wala ay gambien ci biir. Mhm. donc loolu yëpp euh, soo gisee ñu ci wax c'est pour artu suñ mbokk yi nga xamne ñu ngi nek en contact avec certains groupes organisés li tax ma koy wax moo di ne euh waxon nak fi mafia da ci dugg te do ko xam mais so duggee ba ci biir tamit dootoo mën génn. wala dina la laal te do ko xam <laughs> dina la laal te doo ko xam te dina la laal te do ko xam donc ñu ñu moytu yu bari mhm. donc ba mbir momu amé euh, coordina coordinamento de l'associazione sénégalaise de la Calabria te ki ñuy wax Ibrahima Diop. Euh, déggoonte naa ceeg moom sax bind ci euh, def ci euh, benn texte texte bu vraiment de qualité. Uh-huh. texte bu rafet surtout nag boo xam ne day définir suñ nekk waay fii. parce que nee na liberté ak responsabilité ñoo ànd. l'Italie c'est un pays de liberté waaye nag sa liberté bi da nga cee war a xam lu loi bi wax ak lu loi bi war a waxul. far nga war a mën a yem daal far nga mën a yem parce que nak liberté su amul responsabilité rek day day day anarchie lay indi te day gagne borom. Mhm. donc euh, vraiment ma ngi lu mbir momu parce que euh c'est vrai suñuy mbok lañ japp mbok yoyu peut-être ba lañ doon def ñàkkuñ euh, euh xamuñu won danger bi. ndax intermédiation de Lavoro rek lañ lañ jappé euh nel monde de Lavoro peut-être xamuñu won danger bi euh, laaj na ñu

day mel ni da nga nekk complicité. surtout complicité <laughs> dafa am daal complicité ah. dafa am. Mm-hmm. suñ jàppee sa mbokk rek ngeen jóg dajale naan da ngeen leen di dimbale te waxoo jëloo benn position net su tous les secteurs nag yu mën a nekk. Mm-hmm. jëloo position net wane na lii danga nga koo bañ dañuy yaakaar ne soo watul tout de suite procureur dina commencé. <laughs> gëstu yéen yéen ñan di parce que ñëpp xam nañ ne. Euh, mbirum mafia de femmes ay ramifications. sur le plan religieux sur le plan économique sur le plan politique partout et sur le plan social est-ce que l'association est-ce que donc il faut sensibilisation. Ah, de nos communautés de nos communautés. aussi de position comme des prises de position nettes illégal communauté sénégalaise surtout les associations sénégalaises dañ koy bañ dañ ça ne veut pas dire que c'est mbokk suñ ko jàppee doo ko jàppale mais nag balaa nga koy jàppale da nga koy wane ne lii nga def ñun d'accordoon ci mhm. ànduñ ci parce que loolu nak moy parce que loolu rek moo mooy yoon wi te ma gis nak Ibrahima Dem job la tudd fa le coordinateur euh, des associations sénégalaises des Calabria texte bi mu ci def wax dëgg yàlla lu partagé naa ko ci suma Facebook mais luñu wara partager association yëpp. Euh, pour ñu xamné ne wax dëgg yàlla euh, lu birum euh, immigré responsabilité la légalité liberté et responsabilité. Mhm. loolu lañu wara war a loolu la ñu teglu donc damay ñaan association yëpp texte bobu ñu partager ko xam wax deug yalla ne réew mi suñ fi nekkee li ñu war def rek mooy comme gan lañ fi te ñoom ñoo fi gëna a euh, tuuti doole amuñ doole. Uh-huh. parce que jël ay avocat diko fay ay centaine de mille yoruñ ko kon nak li ñu wara def rek moy jup jup jafe na nag mais moy moy moy moy sauver nit. gën aussi di xamal. Euh, suñu askan lu bari dal ci réew mi. tout à fait et damay content donc vraiment c'est toujours man un plaisir loolu ngay wax xam euh, yew suñ nit ñi yeewu suñ mbokk yeewu xam. Euh, plaisir bob laa am chaque chaque deux deux semaines ñëw fi Brescia ñu ci waxtaan parce que li motax ñu taxawal émission bi euh, ci collaboration radio defaral suñu bopp ak Diaspora Vision mhm. muy émission bi ñu tuddee ko li ci diaspora bi parce que nak mënuñ nekk ci réew mi di xalaat suñu réew rek fat réew mi ni nekk te lolu choono rek lay indi ci ci réew mi ah, ah, ah. donc vraiment li may def moy nonu ko association ko le Calabria euh, Calabria association yi ci Calabria def ko yeneen association yeb ñu def ko parce que surtout une sensibiliser sur les les risques d'infiltration mafieuse dans notre communauté muy ci association yi muy ci daara yi parce que mafia suy dem bay infiltrer le monde capitaliste le grand de haut niveau mhm. capitaliste donc infiltrer communauté étrangère lu leen donc mhm. il faut que association yi di sensibiliser surtout les jeunes sénégalais yi door ñew ci dëkk bi jaar ci Libye ñu def ndànk lépp lu ñuy def euh, naan rek dañ leen yóbbante yàkkamti leen loolu ay naxaate la. te lu bëri xamaguñ ko ci réew te loolu xam waaw suñ la yoon soo ñëwee Italie yaa fi indi sa bopp naan dañ laa yónni te yàkkamti la tax nga dugg ci loo warul def sootul dañ laa yónni pour sa pour sànq la. waaw te fii nag mag. 18 ans soo ko amee wax dëgg yàlla la euh, loo jàng-jàng ci sa culture mais war nga ubbeeku tamit xam li la dina te toujours conséquences yi sax la euh, day day yàq der daal tour communauté en général exact exact waaye waaye de bugg am alal rek pour wanewu parce que alal ñi ko am sax duñu wanewu dañuy ñi ko am réellement liggéey ko ñàq ko mhm. duñu wanewu dañuy nëbbatu mhm. mais nag bugg a wanewu rek tax nga dugg naam da ngay wut alal euh, bugg wax na ne takk tabax nga état Sénégal te fekk na loolu yëpp jaarul yoon loolu du lu rafet. donc war nañ euh, euh, euh, sensibiliser les jeunes war sensibiliser ñëpp pour ñu éviter Italie ku ci deful nag su ngeen organiser su ngeen nekkee groupe ku ci deful nag mafia dugg ci sa biir. te su su duggee ci sa biir da lay yàq. Mhm. te tôt ou tard dañ lay jàpp. Mhm, mhm, te loolu nag lu nit ñi war a xam la xam ne organisation lu ngeen booloo da ngeen ko war a teg ci yoon. parce que procureur yi fii ak police aay dañ benn aay boo xam ne lépp lu jaarul yoon mën nañ toog duñ koy yàkkamti nag mën nañ toog un mois un an di la jàng di am ay preuve looloo daal suñ mbokk juróom-ñaari mbokk yi nga xam ne euh, lañ jàll parce que ay quatre heures du matin lañ doon liggéey ñu nga yaa ngi di filme te lu yoo ci dara donc euh, fi la police a des moyens <laughs> d'investigation énormes pour pour am ay preuves daal pour pour, preuves donc loolu daal laa ci mënoon wax euh, di gërëm donc suñ mbokku association yi nekk ci Calabria di leen wax ne euh, comme def nañ position net boobu jël nañ ko suñ mbokk yooyu xam nañ ne peut-être ut lu yóbboon seen famille rek moo leen ci dugaloon moo leen ci dugaloon donc jëlal leen avocat jàppale leen mais nag nañ xam ne juum nañ daal loolu daal laa ci mënoon wax. voilà jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga jot indi di gërëm aussi. Euh, fédération des associations sénégalaises yi fofu fait euh, euh, Calabria euh, prise de position bobu nga communauté sénégalaise yi war mhm. je pense que lu de lay communauté bu dara bu suñu ci ci ci surtout comme ñu ngi wax affaire chinois rek gis nga maladie ba xew tax ba ñu ngi chinois donc communauté lu suñu der dafa yomb la transition

amna ci information aussi à travers presse italienne bi ko relaté. euh amna ci ay information aussi à travers ay audio WhatsApp yu circulé ba yex ci man. di naxarlu nag euh, en tant que sénégalais la xew fofu ca daara ja euh, parce que wax deug yalla ñep xam nañ ne euh, daayira keur seigne Touba bu Monza ay jambar lañ. wax deug yalla bañ nañ ko ba Milan sax. suñuy xewle amuñ place Monza lañ koy defee euh, di gis taxaw bi nga xam ne ñoom daayira bi ñu doom daara ja ak daayira bi ñu ngi taxaw doomu sénégalais yi foofu ca Monza. Euh, évidemment lii xew Augustin moo di ne c'est la deuxième fois ci mbirum jàngale alxuraan suñ doom yi euh, police bi kii justice italienne bi di ci intervenir. Mm-hmm. bi njëkk mooy daaw la rek fële Toscana. Euh, ñaareel bi mooy donc fii Monza mu nekk euh, loo xam ne comme ni ma ko waxee woon rek ci rajo defaral suñu bopp. Mhm. Euh, war nañ jóg gën a caytu. Mhm. Hmm? gën a caytu ci mbirum daara yi bañ éviter rek victimisme parce que ne waaw tubaab bi dañoo bañ diine lislaam rek moo tax ñu ñuy sonal te loolu xam nañ ne am nañ tubaab. yu ko bañ dina l'islam mais nak loi réew mi mo mo moo fi créer liberté religieuse muy constitution italienne moko consacrer ku nek am nga am nga am nga droit dal professeur sa religion professer religion librement librement te l'essentiel rek na nga ko teg ci li fi ponk tuba euh, ponk constitution bi nek manam euh bul ci gañ kenn bul ci tooñ kenn euh, ba noppi surtout nag sur xale yi ni ñu leen di jàngalee mu nekk mbir moo xam ne euh, tamit loi bi da koo wax. parce que euh, mbir mi il paraît benn xale bu fay jàngee moo joytu ay services sociaux yi ba services sociaux yi jàllale ko donc au niveau du procureur. du procureur des des enfants mineurs bi yore affaire yi enfants mineurs yi. mbirum jàngale muy ñaareelu yoon donc sunna communauté sénégalaise ñu war cee jóg nag def ci ay tànk parce que nag njàngale alxuraan suñ doom yi daf ñoo war lu ñu war la ñu war koo def. ci suñu éducation familiale ci suñu éducation waaw ci suñu éducation familiale su fekkee ne musulman nga et euh, religion ça se transmet de fils en père euh, de père en fils euh, te nag comme yàlla def na. Euh, réew mi du réew à majorité musulmane euh, il faut au moins ñu marquer suñ suñ croyance religieuse bu jëm ko jotali suñ doom yi mhm. je pense que loolu moy mbirum diina euh, di wax ne buñ ko tek ci mbirum victimisme wax ne tuba bi de réew mi dañoo contre l'islam peut-être am nañu contre l'islam mais du ñëpp ba noppi nag di wax nañ caytu yeneen communauté yi nañ joxe importance mbirum jàngale xale yi ñu bañ koo def rek mbirum accessoire <laughs> liggéey ba wàcc samedi dimanche nga ne sa doom par force na dem alxuraan jàngi ko euh, bañ jël matuwaay yi ci am te parce que j'aime damay fàtt bëgg di fàttaliku euh, communauté égyptienne nga xam ne damay collaborer ak ñoom liñ ci def dañoo dem ñoom ab école lañ jënd loué bu mag bu nekk foofu ci San Siro nga xam ne seen doom yi dañ fay jàng arab jàng fa italien jàng fa yeneen matière yëpp ba matière... fa tamit. ci même école ci même école école toutes les garanties toutes les caractéristiques d'une école italienne. ak. Euh, loi loi loi loi bañ de bus bus yi fa ñuy association euh, égyptien yu Milan ñom ñoo organiser wu ba def loolu. ba loolu taxaw dal ba loolu taxaw. je sais que euh, fukki at ñaar fukki at ci ginnaaw ñu ngi doon wax boori Zingoña foofu nan lañ fexe woon pour créer fa benn école sénégalaise avec l' ancien consul général bi fi nekkoon muy euh, Souran. projet boobu waxatuñ ko. mais nag ci mbirum jàngale alxuraan bi wax dëgg yàlla dañ cee war a jël matuwaay yu mag parce que nag nañ koy jàngalee Sénégal bëgg koo jàngale fii noonu du nekkee noonu. mënul nekkee noonu te ñëpp xam nañ problème yi fi xewoon ci xale yooyu ñu ñu ñu jëngoon foofu ci Sénégal. Mhm. ba ñu wax ci mu ñu woon wax werante bu mag ci biir Sénégal ba ci jaspora bi. kon nag euh, li nga xam ne moom laa laa bëgg am na sax suñ benn xarit bu ñuy wax Ameth Ndiaye bu dëkk euh, Milan bërki dëmb euh, bokk ci Touba Milano bërki démb def na ci benn aw bu bu bu. vraiment bu am niveau bu de qualité. pour rendre compte situation bi yalla def na jëlee nañ len avocat yalla def na aussi euh, mesure euh, yiñ ñu ci ñëw xaw nañ ko alléger. d'accord manam amna ci ñi ko xamné ne dañu woon mënutul euh, il faut mu dem di signer tous les jours. Mhm. foog naa léegi def na une fois par semaine lañ ko wax. Mhm. amna na keneen koo xam tamit dañ ko defon domi arrest domiciliaire te ba mënutuloon liggéey mais l'égui yëkkati nañ ko sax mu ngi dem di liggéey. yolomal nañu mbir mi yolomal nañu mbir mi. Mhm. Euh, te nak comme niñ ko waxé il faut communauté bi yëpp jàpp ci pour ñu utal leen ay avocat yu bax pour que euh, lolu baña a ñu bañ ci am condamnation. parce que comme ay étranger lañ peut-être une carte de séjour wala une nationalité parce que suñ ci amee condamnation seen droit yu bëri daf leen di di bloqué. dëgg la euh, xam naa donc amna, euh, war nañ xooltu dal, mbirum njàngale alxuraan. Euh, ci suñ doom yi nan lañ ci woon mën taxawee taxaw parce que nag alxuraan moo vaut la peine ñàggum alxuraan jar na ko manam nan la ñuy fexee pour loolu wàññeeku. ci walu woowu sax euh, euh, ki ñuy wax rek Serigne euh, Makhtar Ka bu Serigne Fallou danaka def na ci ap déclaration kan moy Serigne Makhtar Ka bu Serigne fallu wa Serigne Makhtar Ka Mbacké waaw de de Ibn Serigne fallu wax deug dëgg euh comme ni ko waxé ci. taalibe la jàng na alxuraan mais sëriñ la. wax dëgg yàlla nekk tamit koo xam ne peut-être duñ koy faral di dégg lu bëri. waaye euh, ku ubbeeku la. te comme ni mu ko waxee niti jàmm la. te nag euh, euh, diina dafa war a xeex lépp luy fitna. fitna mooy loo xam ne day mbugal nit ki. xam nga su wax fitna rek fitna peut-être euh, étudier mais philosophie la. Mhm. nan la philosophie pour la paix. bañ fitna. lépp fitna rek di sonal doomu aadama wax dëgg yàlla ni ko waxee ci audio bi euh, dafa peut-être sax ñu parce que fitna. loolu mooy njàngum alxuraan jàmm rek la war a indi. laata sax ñuy xuus di ko gën a yaatal dañuy rek dem déglu ki nga xam ne moom mooy Serigne Makhtar Ka bu Serigne Fallou ci euh, kàddu yooyu nga xam ne daanaka yëkkati na. ñoo ñoo fi àndaale loo xam ne moo ñu gën li li fi sàkku si. ñoo xam ko nuñ koy téyee. ak nuñ koy defee ci njaboot bi. ndax buñ koy defee ci njaboot bi su ëllëgee bu ngeen liggéey senegal bu ngeen tëddee da ngeen nelaw. waaye bu ñu fi bàyyee njaboot yoo xam ne jànguñu diine xamuñu seen Tuubaa kon buñ ko mujjee day day day réer. yan ci yàlla musal. kon nag loolu moo wax am réew boo ca nekkee da ngay naxante. da ngay naxante rek réew ma. te toog naa jotaay bu yàggul matiwul ñaar fukki fan. ci waxtaanu biir néeg la sax. Mm-hmm. waaye suñ mun taxaa ba ñuy waxtaan man ak man ak moom ak man ak lu man ñett ñeent. Mm-hmm. muy wax ne njàngum alxuraan bi day euh, damaa wax ne képp ku jàng alxuraan sa xel neex. Mm-hmm. da bëgg jàng nañ la jàppale ba nga mën alxuraan. ku sam xel naqari tam waaye bëgg nga jàngane nañ la muñal ba nga man alxuraan mhm. waaye ku sam xel neex te nanguwoo jàngane nañ nañ la delloo say bokk waaye dóor yeeg yeew deg yooyu mën naa ñàkk daal nett li moom ba mu doonee ndaw fa mu jaar coono yoo xam ne euh, daanaka sëñ ma sëñ sëñ ma ko wax ci mbooloo ci mbooloo bi mhm. kon nag euh, fitna yi euh, alxuraan moom ku koy jàng da nga sonn mhm. kuñ bëgg a yar tam faaw da sonn waaye nag li nga xam ne euh, day fitna dëgg-dëgg moom nañ ko dañ ko moytu luñ mën luñ ca Sénégal mooy fii mm-hmm. ndax Serigne Touba Serigne Moutali Bousso ba mu ko daralee alxuraan dafa woo magam Serigne Modou Fati Kan ne ko ndax mën nga ko jàngal ba mott te doo ko dóor mu ne ko man de du ma ko man waaye Serigne Bousso man na mu ne ko wool ma ko mu woo bàyyi Serigne Bousso Iliman mm-hmm. Serigne bi defloo ko ko moo jàngal ba mott te mosu koo dóor Serigne Bay Jaxate wax na ne Bamba damaa yar Bamba amul yar ca tegu moom yar ci yàlla Bamba kon suñ tubaa daana defar nit te loxoom du ko laal mm-hmm. kon nag jéem a suñ saaliwu ko am lu ko mos sa am doom kilifa gu mag la jox ko doom bi muy daw xam bu ñëwee mu daw mu dellu si bis mu wut ànd ak euh, doom ji loolu ci suñ saaliwu ko damaa defe ne dama ko war a yóbbu daara sàngam su ma demee euh, ñu mën koo jéng ba mu wattu mu su ko indiwaat suñ saaliwu du mooyu waroon ko ñi sotti ko mu ne buñ koy defee nañ ko def waaye buñ man a tànk bu bu ma kenn tànk mm-hmm. kon nag am na fit yo fit na yoo xam ne bëgg lu baax rek moo moo na ko yóbbee waaye nag mënees naa wattu alxuraan te yenn fitna yi doo ci jaar te dañoo soppi suñuy suñu suñu suñu nekk yi suñ maam yi fas liñ daan war ñun léegi kenn du war fas suñ maam yi néegu ñax dañ daan dëkk kenn du dëkk yëngu ñax laa xoñ lañ daan lekk kenn dootu lekk laa xoñ kon nag njàngale alxuraan nga ne na ko maam yi daan defee rek laa koy defee du ma ko soppi loolu ay caaxaan rek man na nañoo fexe ba ba fexe ba gone gi di wattu alxuraan te mm-hmm. yenn fitna yi du ci am mm-hmm. ndax lislaam ñëpp dañ koy dañ ko teg bët kon nag ku ñuy ku ñuy tam mm-hmm. day soccoo yenn lu yenn liir dañuy am ci yow yow yow yow yoon aw yoon boo demee ay Indonésie ay Malaisie ay Arabie Saoudite ndaw ñi dañuy wattu alxuraan te yenn fitna yi ñoom xamuñu ko kon nag jéem leen a roy ci loolu wa wa wàññiwul dara mm-hmm. ñun ñëpp ay dongay daara lañ mm-hmm. man ci daara laa daale jàng eh, ba àgg àgg fu ma ci àgg maa ngi yor daara ba ba dee sama kër. Mm-hmm. kon nag doomi daara ak sëñ daara mooy mooy wax. du jaage ne koo xam ne dafa xamul daara. dëgg la du du arabisant buy waaye ab dongom daal di ab sëñ daara. Mm-hmm. mooy wax. kon nag euh, sëñ ñaan moomu ñu koy ñaanal yàlla ko yàlla génn mm-hmm. ci jàmm. moom moo moo ko moo ko moo tax mu dal. waaye nag bu bu génnee. jàmm moom ñu ko àndal. ñi nga xam ne nag ñooy jàngale itam nañ bàyyi xel dañu nekk ci réewum jàmbur. réewum jàmbur boo fa nekkee. da ngay da ngay naxante rek da ngay naxante fexe ba am li nga bëgg. ci ñoom fexe ba defar suñu njaboot yar leen ci taalib yar leen yar leen ci lislaam ndax bu ñu amee buntu rek dañuy daal topp topp kër Sëriñ Tuubaa di di ko tëj benn par benn. Mhm. di ko tëj benn par benn. ndax ñoom loolu ñoom loolu moo leen gën a. Mhm. kenn du jàngale diine. kenn du fi yar yaru diine

ndaxte euh, pour la première fois ñu dégg euh, ñu rapporter euh, position tranchée du Khalif général des Mourides muy sëñ Muntaxa ci mbirum daara yi parce que yu ci bëri dañ doon wax rek mais musuñ position nette et claire bu sëñ Muntaxa ab maa ngi wax sëñ Muntaxa mais presque de tous les autres Khalif yu nekk ci Sénégal te yàggoon naa ko fi wax amul Sénégal bu bu bëgg fitna <laughs> bu bu bëgg Sénégal nek ci fitna lepp lu ñuy def Khalif général lolo ñu sauvé ñun Sénégal te peut-être lolo tax guerre civile une société révolution explosion sociale amu fa parce que ñoom nit ñi dañ leen di top di leen déglu te xalif bu ci nekk li nga bëgg mooy jàmm sax fa abadan kon nag suñu waxee ne ci mbirum daara yi ci mbirum njàngale daara yi daaw xam nga affaire yi xale yooyu ñu fi euh, jéngoon indoon fi wax defoon nañ ci sax émission wax ci uh-huh. euh, lii day wane rek ne ñu bëri ñuy bugg ñuy waaraate ci rajo yi di soo waxee dara rek ci mbirum daara yi ñu dal ci sa kaw euh, fo naa ne dañoo dégluwul waxi sëriñ bi parce que yaa ngi fàttaliku waxoon nañ fi il faut que ñiy jàngale daara ñu indi pédagogie ci mbirum njàngale daara ji nekkatuñ euh, tangi maam ya comme ni ko sëñ ba waxee naka maam yi doon defee wax dëgg yàlla ñu bëgg koo defaat loolu mënul nekk donc il faut que ñu indi pédagogie parce que suñ demee sëñ euh, Sidi maxtar su demee ba ne euh, sa duñ koy waxee waxati sëñ Muntaxa moo ne su fekkee ne xale bi xelam neex na tam bëgg jàng ñu jàppal ko ci mm-hmm. su fekkee xelam neexul te bëgg jàng tamit ñu jéem a topp topp ko ba mokkal ki nga xam ne na xelam neex na te bëggul jàng nga delloo ko ay waajuram loolu li muy wax rek moo di ne il faut que ñi nga xam ne ñoo yore daara yi ñu am benn capacité pédagogique te man je dis que su ku sëriñ bu dóoree rek mooy sa bopp nga dóor parce que yow waroon nga jàngal nit te doo ko dóor ku jàngal nit di ko dóor rek mooy yaa ngi koy forcer pour mu jàng mm-hmm, mm-hmm. te nag njàng dafa nekk loo xam ne da nga xale bi da koy mettre condition mu bëgg ko. waa ci ay kàddum sax nee na nag du yomb jàngale ma alxuraan moom du yomb. du yomb mais nag il faut nga am benn approche ci ni ma déggee. tout à fait bi nga xam ne moom ngay moom ngay indi daal. tout à fait mais mu wax ci terrain de tamit modernisation wax ko ci parce que nee na euh, nañ doon jàngee bu njëkk mënuñ ko jàngee léegi. Euh, parce que ay néegi xëtt la ay néegi euh, bant lañ dëkkoon léegi ñu ngi ci dëkk ci ay étage donc mais affaire modernisation soo ko waxee rek. ci mbirum euh, diina euh, ñi nga xam ne euh, en général ñi jàng làkk culture occidentale ñoo koy wax suñ ko waxee rek ñeneen ñi yaakaar ne occident moderniser mooy occidentaliser confrontation bi confrontation culturelle day am. mais sëriñ bi waxul dara lii mu wax sëriñ Sidi Maxtaar lii mu wax lu leer la c'est-à-dire il faut que ñu jéem a indi pédagogie mais il faut aussi ñu jéem a moderniser ko xam nga suñu émission boole maa ngi doon wax ne pourquoi pas sax. ñu defal euh, euh, alliwa digital nga xam ne euh, maître bi day mën suivre xale bi mhm. ba noppi ma gis ne sax waa daa Touba Milan Ahmed Ndiaye moom ma ko doon nettali def nañ sax benn cérémonie boo xam ne xale bi su day fekk ay boissons jus ñu ñu ku ku ay ñu ñu ñu ko des des primes pour pour que xale yi bëgg ñëw jàng ko motivation motivation donc mais soo defee mu nekk benn affaire bu austère sévère loolu da ngay tiital xale bi te nag li tax intervention carabinieri yi peut-être xale yi ñu doon yuuxu peut-être sax ñu ngi weddi ne dóore amu fa mais xale soo ko yuuxoo euh, <laughs> mu dem dem ci école bi euh, dem ci école bi muy jàngee wax nettali ko fa problème day indi donc mu amaat beneen aspect boo xam ne euh, suñ contact avec l'Occident toujours dafa mos a poser problème maa ngi lire rek bërki démb benn interview bu xam euh, l'écrivain Cheikh Ahmedou Kane sur livre boobu célèbre livre bu tudd l'aventure ambiguë euh, mu nekkoon contact entre la culture occidentale à la culture africaine ba ci livre bi muy wax euh, est-ce que ce que l'on apprend vaut-il ce que l'on a oublié Madame, est-ce que luñ li ñuy jàng yemboon nag la nga xam lañ fa lañ jógee ak bàyyi bàyyi ci ginnaaw. moom bi muy wax loolu moo di ne ñoom euh, dañ leen formé woon à l'école occidentale bëgg leen obligé ñu jang nekk comme tubaab yi euh, ba mu posé question boobu. ñun nag wax dëgg yàlla ken obligé wuñu mais dañoo ñëw réew jàmbur <laughs> fekk fa ay loi fekk fay doxalin. xex bi nekkul. ñëw rek mu euh, tëju rek def suñu mbir jeex ji parce que du mën nekk. mais xeex compliqué lay doon waaw lu compliqué. Euh, mbir mi moo di ne est-ce que ñun lañ jëlee suñu réew mën nañ ko sotti fii ci réew yu nekk te méngoog waa réew mi. maanaam ndax dina mën a adapté wu. adapté wu lañ jëlee suñu réew xam nga moom daf ne lañ jàng la ñuy jàng est-ce que dina yem ak lañ fàtte moom la Cheikh Hamidou Kane wax. Mhm. ñun immigré yi nag li ñu war a wax léegi mooy lañ jëlee seen suñu réew. est-ce que mën nañ koo doxal ci réew mi tam méngoo euh, doxalin réew mi. Mm-hmm, mm-hmm. donc dinaa même aller plus loin est-ce que mën nañ fexe ba sotti ko ci réew mi doomi réew mi bëgg ko. loolu mooy défi bi nga xam ne ñun en tant que immigré moom la ñu war a def. Mm-hmm, moo di lu bëri suñu réew am nañ ko mu nekk valeur mais nag nam nekkee suñu réew mu nañ ko ko sottee fii. il faut que ñu jéem a xool lañ jëlee suñu réew. nan lañ ko mën sottee fii yokk ci réew mi dañ koy yokk waaye pas mu nekk en euh, en affrontement confrontation avec li ñu fekk ci réew mi loolu mënul dox parce que réew mi dafa organiser réew yi ñoo ñu gën a organiser mais xam ne ne réew yu ubbeeku la mais nag day fekk la nga jëlee yow sa réew nga jël ma teg ko ci yoon woo xam ne danga ko mën fexe ba nit ñi doo waxuma sax promouvoir ko mais nit ña koy bëgg ñëw fekk si la te loolu li ñu ci mën a def ci tous les plans mouy littérature mouy culture mouy musique mouy restauration. muy lépp ci fànn yu bari da. ci fànn yu bari. Mm-hmm. Wa, mais nag su fekkee rek yow da ne la nga jëlee réew mi rek moom ngay ñëw rek sotti ko ci rew mi wala tëju loolu ay problème lay indi. te loolu nag lu wara, war wara lu la dal. Wala, ci mais nag ci mbir ni mel euh, lan moo war a doon taxawaayu communauté sénégalaise bi. ci mbirum daara daara yi. waaw comme ak problème bi ni mu demee nii. waaw problème bi moo di ne gën a gën farlu dal pour que mbirum jangale alquran ñu gën ko améliorer man damay wax sax ñun wa immigré yi njàngum mën nañ fexé ba nga xamné ne sénégal dañ koy jangé ci ñun nan lañ wara a alquran parce que nak sooy wax suñu wax alquran euh pour xalé yi lepp moy mémorisation la technique de mémorisation la parce que nak lu ci bari xalé yi dañ koy tari te duñ ko comprendre parce que tollooguñ fuñ len di dougalé ci philosophie philologie coranique ak yu mel donc mais te pourtant rew yi ñu nek man mës naa ci participer ben cours cours bo xamné dañ lay jàngal pour nga gaaw mémoriser technique de mémorisation. Mhm. même ñi def théâtre comme ñom ngoti yooyu yëpp dañ koy jàng. donc amna technique de mémorisation yo xamné ne yi dañ ko war jàng pour mën ko jàngale pour mën ko utiliser sur seen sur seen pédagogie. man dem naa ci ben cours bo xam ben ben benn waay texte bo xam ne bon na quatre pages dañ ko ko lire ñet yoon mu tari ko quatre pages. automatiquement mu capté ko dans sa mémoire fi amna école yu jàngale lool technique de mémoire donc ustaas yi nañ ubbeeku nañ leen nañ jànge woon alxuraan munuñ ko jàngale continuer di ko jàng alxuraan nañ dem uti xam-xam pour xool nan la ñuy jàngale ci technique de mémorisation. Mm-hmm. te loolu ñun suñ ko defee mën na jëriñ suñu waa réew parce que pédagogie peut-être ñu ko xamul da ngay fonne amul mais science la pédagogie parce que xale bi euh, euh, xale yi déjà bokkuñ comme ni ko sëriñ bi waxee. ku nekk ak sa tempérament sa tempérament ak sa niveau sa niveau d'intelligence ak yu mel noonu mais nag bëgg a yemale xale yëpp forcer leen ñu jàng ñu jàng mokkaloo loolu amul donc il faut que ñu indi ci xam-xam xam-xam xam-xam ñiy jàngale. il faut ñu indi ci xam-xami pédagogie loolu nag dafa laaj sacrifice dafa laaj aussi liggéey bu métti waaye nag liggéey boobu soo ko bañee ne da ngay forcer xale bi pour mu mokkal alxuraan loolu erreur la te du te du jëm kanam am na ñoo xam ne sax gëmuñ gëmuñ luy pédagogie te ndaxam pédagogie moo formé ay nit bañ nekk ay docteur ingénieur te kenn mosu leen dóor <laughs> pédagogie moo formé ay nit bañ nekk professeur te kenn mosu leen dóor kuñ kuñ formé nag ba nga toll ci yenn niveau yi ba mën nekk ay docteur ingénieur di inventé ay mbir te kenn mësula door ça veut dire que donc yoon nekk na ci jàngal nit te doo ko door. dëgg la loolu moom wax dëgg yàlla lu ñu war a dépassé la euh, buñ jaane affaire occidentalisation mais ça n'a rien à voir avec affaire occidentalisation surtout nag su sëñ bi waxee sëñ bi nee na <laughs> xale bi su neexee xel bëggul jàng delloo ko ay waajuram moo gën dóor parce que daara nag du pour yar daara du pour yaraate parce que mënoo boole jàngale ak yaraate day métti daara quand je dis éducation coûteux wax dëgg yàlla delloo ko ay waajuram comme ni ko sëriñ bi waxee mais nag ne da nga koy yeew wala da nga koy dóor bon je pense que loolu amul fii sax Italie yeew ak dóor amu fi peut-être parfois xale yi euh, di euh, mbir mi la leen dul intéressé ñu dem nettali yeneen euh, autorité italienne yi mais nag war nañ jéem a organiser mbirum jàng te loolu daayira yëpp daayire rek ñoo muy bu murit bu bu ñoo a pour xool nan la pour ut day yi non seulement ci mbirum diine rek mais aussi ci mbirum culture suñ culture suñ aada euh, suñ pour ñu mais il faut ñu ambition bu bañ ko jël rek benn affaire accessoire loolu problème lay indi. jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga euh, jot a indi. laata nag ñuy wéy di dugg ci beneen ponk waxtaan bi euh, te muy lalu nag ci élection yu amoon euh, ci Emilia Romagna ci wàllu politique la sax fii ci réewum Italie. Mhm. te Centro Sinistra daanaka tegaat fa tànk. Mhm. dañuy def rek benn break dellu si ci plateau waaw Sophie. xet bu neex bi si biir kër gi xanaa daa am looy waajal. déedéet El bëgg lu neex rek ak efficace. lu efficace loolu lu mu. xanaa déodorant bi élage Hadj tudd Remanes di joxe xet bu neex ci biir kër ci ay oto ak fépp foo xamante ne rek xet bu neex war na fa jaar te boole ci dafa am ñaari njëriñ. même sooy de sa kër mun nga ko boole li nga xamante ne mooy sa détergent ak toq rek mu bàyyi la xet bu neex te xet bu yàgg lay doon élage waaw li ñu doon mayonnaise ko soxla nag nooy def. te ñu seeti ki nga xamante moy mooy pour chéri ci Trento. remenees ngir seen kër di nes nesi set am xet bu ponk bi nag bi ñuy dugg mooy euh, mbirum politique fii ci Italie euh, ci ay bés bee ñu génn rek euh, amoon na fi ay élections régionales fële nag ca Emilia Romagna ñëpp tiitoon nañ ne Lega dina ko jël ak lu demee noonu daal waaye nag daanaka Centro Sinistra moo fa tegaat tànk. Mhm. ñu bëri nag di laaj ndax ndam boobu waa Centro Sinistra am foofu nag nga xam ne moom moo di Emilia Romagna mën na indi ay coppite ci liñ fi doon coow maanaam sénatoria bi maanaam mbirum mayu kayit fii ci Italie. waaw effectivement mën na le fait que centro sinistra mouille la gauche mouille le centre gauche euh, avec le parti démocratique wax dëgg yàlla ci suñu émission bële ñu ragaloon trop parce que élection locale le gars, mais qui, euh, beneen mbër mi wax Matteo Salvini -hmm. moom da ko jël sax pour am signification nationale pour que su gañee ñu mën a wax nguur gi fi nekk nañ daanu élection loolu moo nekkoon objectif euh, te yalla def na gañewul mom Salvini mais su gañe woon ñëpp xam nañ ne wax deug yalla gouvernement bi dolem dina wañé ko trop. du amati équilibre bu war. dina daanu wala dolem wañé ko te mbirum immigration gouvernement yi ci mës def changement yeb muy gouvernement yu am doole. gouvernement su ñaké doole rek du bëgg laal mbirum immigration lolu seddu nañ ko Italie mais aussi ci yeneen dëkk yi. Mhm. il faut que gouvernement bi mën changer positivement ou négativement muy gouvernement bu falu am doole. Uh-huh. te nak su fekkee ne ñu ngi dem e, e, élection Emilia Romagna euh, Salvini bëgg fa gagné pour mën néewal doole gouvernement bi wax dëgg yàlla ñun immigré dañuy jaaxle yàlla def na alhamdulilah ñàkkul ne gars yi def nañ ci ay ñaan. Uh-huh. Euh, ba nga xam ne centre gauche bi avec le parti démocratique ñoo gagné. gagné bu sori sax parce que ki toogaloon foofu euh, Salvini muy benn jigéen ñu koy wax Lucia Borgonzoni euh, moo ñàkk te ki ko raw di euh, le l'ancien gouverneur muy l'ancien président Bonaccini Bonaccini rawee na ko presque huit points laata sax ñuy xuus di gën a leeral mbirum élection boobu ci Emilia Romagna nu mu demee mm-hmm. dañuy seetaat rek seetaan rek njàngat bi nga xam ne def nañ ko ci parti gi nak depuis di delluwaat na rek nekk ca bopp parti ya ca diwaani emilia romagna ak nag 34,6 pour cent ca ña seni sànni seeni carte ci élection régionale yu mujj yi ci élection européenne nak lega afa gagné won mouvement 5 étoiles dal di fa gagné nak ci élection politique yi ci atum 2018 Emilia Romagna nuñ ko xamé nak diwan gogu centro sinistra ak mosu jité way nak ci at yu mujj sen doole dafa xawa wañéku qui n'a di de ci ni euh, gagné élection et foofee ca ak 56,7% ci ñi ko jot votel na rek ki di Nicolas Zingaretti aduna rek ay euh, kàddu ñi nga rek ñoo mouvement les sardines ci euh, nuñ leen taxawé Bonoccini nag ak juróom fukki atam ak ñett bokk na nag ci parti gi ci atum 2007 2010 ñu tabb ko fa conseil régional ci atum 2014 mu jiite diwaan googee ko niki ni mu koy jiitee tey gannaaw nag ba mu jëlee raw gàddu ga comme euh, niñ ko déggee rek ci élément bi daanaka euh, Bonaccini te wax nga ko sànq sax ca ca njëlbeen. Euh, mm-hmm. daanaka am na benn marche boo xam ne gagné na ko fa ñi nga xam ne mooy ñi fété woon ci ci ci légal. exact donc te ñu bëri dañ doon wax ne peut-être liñ doon lim lim na ga li différence bi nekk diggante Bonaccini ak Borgonzoli bëriwuloon. Mm-hmm. ba noppi ñu gis ne Matteo Salvini moom dafa def daf ko def élection nationale presque dafa dem di le candidat am Matteo Salvini moo doon gën a mu euh, événement incident boo xam na bëri dëkk dem na ci benn dëkk sone foofu ca Bologna sone fa famille tunisien naan leen ndax yéen jaay drop. Ah, loolu tam indi fi ci bi. indi lu Facebook biñ ko Facebook. ba vidéo Facebook annulé ko. Mhm. Euh, donc euh, mu wax dëgg yàlla euh, suñu yeboo ne yaakaar am yaakaar am na. Mhm. parce que gouvernement bi Salvini depuis ci ñaari at yi depuis 2012 mu ngi door a ñàkk ñàkk élection est-ce que du série buy déclenché wu à partir euh, de ce de ce vote. maanaam élection yi amoon Emilia Romagna euh, euh, ba noppi tamit ñun en tant que immigré waxuma sax ne élection bi yaakaar lay def ci mbirum sanatorio bi nga yomé mais yaakaar sur euh, la politique de l'immigration parce que ndaw si nga xamné moko yoré euh, yore ministère bi ñu koy wax Lucia Lamorgese mom technocrate la administrateur civil la loolu la musu liggéey te wax dëgg yàlla technocrate yi suñuy doxal parfois dinañ éviter yenn politique politicienne yi parce que parfois dañuy xam avenir réew mi li réew mi soxla ñu jox ko ko. Mhm. donc ñu am yaakaar rek ne euh, ci mbirum euh, sa loolu ñu loolu ñu doon ngurumtu mbirum sanatoria ñu am yaakaar rek ne ndaw si nam ko waxe woon ne ñu ngi ciy liggéey te pareeguñ ñu ngi ciy xalaat caytu sax la wax. Mhm. te pareegul yàlla mën na def tamit wax dëgg yàlla loolu gën a gaaw. pour que liggéey ba ñu cee génnee eh, mu génne ko pour yóbbu ko assemblée ñu wote ko mu nekk loi. il y a de l'espoir quoi ko mënee. espoir mu ngoog. Mm. maanaam yaakaar bi dundaat na. waaw parce que yaakaar bi da doon dem su Salvini gagné woon. wax dëgg yàlla yaakaar bi moom luy tuuti. mais léegi nag yaakaar bu mag mu ngi ci. mais nag dara leeragul. Mm-hmm. Mm-hmm. dara leeragul <laughs> nañ xam ne rek gouvernement bi am na taxawaay boo xam ne fi nekk nii parce que. élection bobu ñu gagné ci Emilia Romagna daf leen bien que le parti bi étoiles ñom wax dëgg euh, dafa peut-être euh, parti démocratique ci biir gouvernement peut-être wax euh, le premier ministre même su nekkul mu même su parti démocratique c'est un homme de gauche parce que wax na ko sax nee na. ay idée de gauche la ay idées de gauche la yore. donc nañ xeex les droites les destres lañ koy wax ci italien. Mm-hmm. nañ nañ leen nañ xeex seen idées yi pour indi ay idées ça veut dire que xeex idée droite ci gouvernement bi fi mu nekk nii mu ngi nekk ci remettre en cause loolu loi yu métti yi nga xam ne moom la euh, mi ñuy wooyee Matteo Salvini moom la tegoon mu koy wax les lois loi sur les sicurezza ndax loolu dañ koy xoolaat changé ko waat. donc euh, am mbir yi ak nu mu demee nii ak photographie bi ñu ci mën a def mooy ni rek euh, mën na indi yeneen pàcc yoo xam ne daanaka lu bëri war nañ ko mën a changé ci réew mi te teg woon ci. ci ci ci kaw immigré yi. wala waaw tout à fait. donc nañ ñaan yàlla rek gars yi nga xam ne comme ñun ay nit yi gëm lañ ñiy ñaan ñu gën a yokk ñaan <laughs> pour que gouvernement bi. Uh-huh. dooleem gën a dëgër. Uh-huh. Euh, pour que ndaxte réew mi moo soxla ay nit ay nit yu jógee bitim réew nit réew moo ko soxla peut-être ñun ñëw nañ rek fekk si ko te xamuñ sax li ñu fi indi. Mhm. mais peut-être aussi yàlla moo ko soxla. maanaam nit ñi jaxasoo ba noppi Europe euh, ñëpp bokk ci. parce que fii le xéewal gi nekk fii mooy continent bi gën a développé bien que nag ñun suñ continent lu bëri am na ko mais xam-xam geeg taxaw bi moo xaw moo fu manqué. Euh, donc euh, xam-xam ah, nit ñi jaxasoo xam-xam bi tas ci àddina peut-être mooy yéene bi nga xam ne loolu vraiment euh, waarewuma <laughs> je suis mais je suis un homme de conviction peut-être loolu moo tax donc lépp lu nit di def rek nañ fexe fii ñu nekk nii suñ nekk waay mu gën a ñu gën am taxaw ñu bañ bañ fitna bañ doon wax muy philosophie mhm. fitna bañ am ci réew mi parce que réew mi su amee fitna ñëpp lay dal ñi fi dëkk ak ñi fi gan ñi fi gane lay gën a dal ci seen kan kaw kon nag na ñaan yàlla pour que réew mi gouvernement bi fallu mu nekk gouvernement bu am doole mais aussi nañ leen bokk ci réew mi ci mbirum daara yi lañ doon wax léegi euh, keroog wax nañ fi mbirum

Euh, dañoo jaar ci àddina bi rek mais war nañ fexe ba nga xam ne ñun en tant que communauté war nañ fexe loo xam ne fii day yokk ci réew mi ba noppi mën yokk réew mi ñu jógee. intégration waaw intégration donc euh, mais loolu il faut ñu am taxawaay bi. Euh, ba a wax rek man booy ñëw yi may tasel à chaque fois biir Milan ak li ko wër li ma leen di wax moo di ne bu leen yaakaar ne rek am ngeen benn salaire rek seen àddina mot na <laughs> waaw da nga ciy commencé di jàng di yokk di ubbeeku sa xel waaye nag na nga jógee Sénégal nga nar koo nekkee fii ba màgget ba ñibbee toll fa nga tolloon loolu musiba la même su la yàlla mayee ay immeuble sax Sénégal mooy amuloo ba njëriñ xeet gi te nag dañoo war def lépp lu ñuy def dañ ko war a defal loo xam ne day amal njëriñ xeet gi. dëgg la ci wàllu woowu ba tey rek euh, ci wàllu euh, sénatoriat bu ñu fi doon waxtaanee euh, ci ayu bés yi la ñu génn maanaam mbir mu may kayit bi mu mel ne nag temps yi moom ci réseaux sociaux yi daanaka fake news yi bëri na ci lool lool maanaam fake news mooy ay xibaar yoo xam ne dëppoowul ak dëgg. ni dal moy jékki-jékki rek génnee ko ne li ak li la te amul euh, des bases yu solides ken xamul fan la ko jëlee ak wax ji ndax <laughs> dëgg la wala lu dëgg lu doy war tout à fait léegi effectivement fake news bëri na ci réew mi moy yaa ko traduire ci français fausse nouvelle euh mais foog naa ci wolof dal moy dori expression boobu dañ koy utiliser <laughs> waaw Sénégal dóor ay. dóor ay dóorkat kat ay dóorkat dañoo dañoo. dañoo bëri ci réew mi. Euh, te dóor nag ci mbirum immigration daf cee fekk baax. ay dóorkat yu mag nag ñoo nekk ci mbirum immigration. may fàttaliwu rek man bi ma ñëwee ci réew mi en 2002 euh, ma toog rek suñ suñ defaguma fi sax weer su ma italien déggu dégguma ci dara ci italien rek suñ dëkkandoor yi nañu euh, fekk mooy sanatoria bu 2002 nga xam ne dem nañ ba tëj ko. bañ ne jeex na. rek ay suñ mbokk nañu. Koomu chambre de commerce de Koomu day kayit hmm. keroog su ma peut-être li tax sax ma gën a ci immigration Faut la Il parce que te <laughs> dafa tax sax euh, li ma dugal ci ma aussi ñun sénégalais niñ mel ah. <laughs> waaw positivement ak négativement alors loolu su koy fàttaliwu daf may parce que ñu ne sanatoria jeex na tëj na sénégalais yi ci seen biir ñu lance idée ne chambre de commerce bu Koomo day maye kayit. jox ñu tàmm woon ci Koomo. xaw ma nu mu demee ay dóorkat rek <laughs> jël jël chambre donc da naa lu tax ñu tànn ci Koomo. lu tax ñu tànn ko chambre de commerce te boobu whatsapp ak yii yëpp amul de. Mm-hmm. xam naa ne su doon tàngi whatsapp boobu day gën a buum. gën a exploser keroog ba ma yeggee euh, gaari euh, centrale bu Milan ñu jël train di dem Koomo. ca laa xam ne lii amul. parce que bi mu ñëwee ci gaar bi train bi mu nekk dix voitures dix wagons ñëpp sénégalais lañ doo ci gis naar doo jën beneen xeet. ñëpp jël daal direction kooku. jëg jëg ko léegi nag ma ne xanaa këyit suñ koy mayee duñ koy yemale rek ci sénégalais yi. soo dawalee sa xel tuuti da nga xanaa këyit suñ koy mayee du sénégalais yi rek. parce que pourquoi sénégalais yi rek jël train bi dem Koomo. ñu wàcc Koomo chambre de commerce ak euh, gare Koomo. war na mot quelques kilomètres taxi yi amatul Sénégal yi rangale taxi ñu ñëw ci buntu centre de commerce ñu gis benn fil boo xam ne mën na 500 mètres ñëpp ay sénégalais. télé yi nag ñëw. mu nekk mbir mu doy waar fa laa xamee ne dóor ci mbirum immigration depuis le Sénégal da ko dafa lalu immigration dafa lalu ci ay dóor mooy li ñuy wax fausse. fausse yàlla def na loolu yëpp ay dóor la woon chambre de commerce boobu keroog

chambre de commerce boo war a pour wane ne yow am nga moyen nekk entrepreneur. su boobaa ñu jom mën laa jox séjour. loi boobu lañ jël ñoom tas ko ne sanatoria la dëkk ba fees commune euh, chambre de commerce bi profité jaay ci ay marque de bolloom yëpp ay timbre fiscal parce que da nga doon remplir benn fiche déposé ko marque de bollo de 10 euros man maa dugg ci biir boobu dégguma itam laajte ba kenn ci ñoom mu wax ak man en français explique ma ma ne mbokk yi lii du sanatoria. ñu ne ma ah yow yaa ngi fi ñëw bërki démb bëgg ñëw jàng <laughs> bref loolu tey <laughs> woon léegi nag comme Facebook dafa am WhatsApp am mhm. fake news dóor yi day bugg a yokk wax dëgg yàlla aw jo yi circulé ci biir mbokk yi am na ci buñ ci déglu wax dëgg yàlla keroog bi mu ko dégloo dama xulli suma dama tiit parce que kuy wax ne décret bi président de la république signé nañ décret bi xanaa li des rek mooy ñu jàpp bés wax ñaata la ñi war a verser loolu wax dëgg yàlla ki ko wax euh, ay mbokkam oo nañ ma parce que man loolu mu wax reprendre naa ko. ban ban ban xamante nga ak moom bu baax bu nga ko xam ko xam kan la exactement. moom moom du kii wax moo o oo mais xaritam. ah d' accord xaritam di ma wax nag ne wax dëgg yàlla waa ji euh, baaxam rek moo tax muy def loolu mais nag nee naa ko baax nag wax dëgg yàlla euh, ci loo am ci loo moom. ak ci loo xam. mais nag di wax loo xam ne moomoo ko xamoo ko. wax dëgg yàlla euh, man de mission laa ko def depuis bi ma duggee ci réew mi lu may xeex la. Mhm. Euh, immigration dañ ko war respecter. lépp lu lépp parce que immigration na muy doxee ak loi yi du ñun ñoo ko wote du pour ñun. réew yañ jëm ñoom ñoo ko moom. mais nag suñ gisee aussi immigration lim indil suñ réew. moo tax dafa war dañ cee war ñu setal ko lim indil suñ réew parce que tey famille ya nekk Sénégal di vivre sur l'immigration kenn xamul nu mu toll. kon nag lu ñu war a la jaral ko yoon. ni ñu koy waxee ay régulateurs sociaux la. ay régulateurs sociaux la ba ay mille milliards presque de français CFA di dugg Sénégal kooku mooy wane ne immigration amal na njëriñ réew mi. Hmm. ko donc lépp luñ ci war a def rek dañ ko war a seetal seetal bi moo di ne moomuñ loi yi wote wuñ loi yi décidé wuñ loi yi mais ñu wax ko ni mu nekkee ñaareelu affaire bi moo di ne faa yi ñu waxee may këyit rek business naxante daf cee bëri cas yi mën a ci mën nettali dramatique nag parce que kiy lekk sa xaalis moom xaalis bi rek la mais xamul conséquences yi muy indi ci yow conséquences yi muy def ci sa nekkuwaay ci sa réew mi. Mm-hmm. ak conséquences yi muy def ci sa famille ba nga yore Sénégal. li mu la mën a yàqal day bari. li mën yàqal kon nag wax dëgg yàlla mbir su baaxee amal njëriñ man je dis que pétrole bi ñuy wax ak gaz bi Sénégal di ci wax wax ju ci immigration lim indil Sénégal pétrole gaz ko naa dinañ dawal ay at pour mu indil ko Sénégal kon nag dañoo war ne suñ pétrole ñun ak suñ gaz mooy immigration dañ cee war gëstu bañ cee yàkkamti jàng xam li wax xam yoon wi jaar yoon nit ñi jaar ci pour am seen këyit. Hum, hum, hum. sanatoria nag lu am njëriñ Sénégal la parce que dernier sanatoria sanatoria bi presque 20000 sénégalais am nañ ci këyit bu 2012 bi sur 100 et quelques mille, 20 000 Sénégalais ont été créés. 2012 ou 2002 2012. D'accord. Pour 2002, <laughs> presque le presque 100 000 Sénégalais. Mhm. Parce que régulariser 600 000 Sénégalais. 600 euh, 000 étrangers, Fidji, Italie, en 2012. Mhm. En 2002, moi, je suis moi, régulier, Sénégalais, je suis régularisé. Maintenant, sous sénatorial, il le a 100 000 Sénégalais qui ont été <laughs> Eh, su may wax sénégalais mooy ñu ci bëri dañoo wax ne ay malien lañ wala ay guinéen lañ fekk nañ waxante dëgg xam nañ. xam nañ Sénégal lañ cosaanoo. waaw xamante nañ ci suñu biir. donc euh, te su nit ñi amee këyit rek liggéey day dañu nekk ci jàmm te loolu nag dafa war bépp sénégalais am taxawaay boobu mais soo naxee nit ki lekk xaalisam sanatorio bi jeex. amul këyitam ñàkk xaalisam loolu àq bu mag la te dañ ko war a xeex ñun. mais mais waa ji moom lan la wax exactement ci audio bi euh, lu jëm ci affaire. may sax personnalisé waa ji parce que bugguma sax ko ne dama koy xeex wala da koy contre parce que ku dem ba président de la république signé na décret bi xam nga loolu amul. Mm-hmm. <laughs> ku dem moom loolu moom amul moom. waaw loolu amul. ku dem ba naan na ngeen dajale seen xaalis ak dajale seen i këyit parce que léegi mu génn xam nga loolu am loolu amul. Mm-hmm. ok. donc buguma personnaliser débat ci parce que buguma nek kuy wax lu parce que du que mhm. li wo moy wax wax nañ ko ci immigration fi lu même ni mayum peut-être waxum benn benn bi ko mhm. mais waxtu bo wax bo tous les sénégalais. dina leer dal ci yenen yenen voix. voix ñun dinañ ko wax ko. Mhm. Euh,

c'est pas amuñ dara dara. <laughs> diaspora dara euh, euh, <laughs> offriruñ mais nous, li offrir la bonne et juste information sur l'immigration te képp ku déglu fii ci lii diaspora loolu du am modestie du modestie sax pour déglu ci ci diaspora ak ñuy déglu ci suñu mbirum te commencer à partir de semaine prochaine sénatorial amagul mais dinaa commencé di caytu nit ñi wax leen li nga xam mom lañ préparé pour bañ kañ leen nax parce que suñ la naxé ba nga joxé sa xaalis bañ tëj sénatoriat bi moo non seulement doto jot sa xaalis mais aussi doto am këyit te nek ci réew mi nekk fi ay at yoro këyit lu ko gëna metti am. dëgg la kon nag li wax rek euh Augustin bëgguma yag trop ci cas bobu uh-huh. xam né ne dinañ ci defaat yeneen. émission dinañ ko gëna yaatalat sax dinañ ko gëna yaatalat yaatalaat. Uh-huh. wax né nak bu na nit ñi utiliser seen xel bëggum kayit yàkkamti ba lu nit parce que audio yeeg Facebook yi yi ñuy partager ni mu bëree te soo dégloo soo xalaatoo tuuti rek da nga xam ne lii tegul yoon. dóorkat yi daal bëri nañ. dóorkat yi muy fake news yi. <laughs> dóorkat yi nañ moytu dóorkat yi nañ mo moytu dóor yi. parce que mbirum immigration mooy dinañ la dóor dem seen yoon parce que dëkk yu gis nañ dëkk yu bëri yoo xam ne amoon na ay dóorkat sénégalais. te loolu wax dëgg yàlla bi ñu commencé wax ba léegi dafa wàññeeku. xam naa ne nag ñun li ñuy wax du leen neex ñoom dóorkat yi <laughs> waaye wax dëgg yàlla du ñoom ñoo tax ñu jóg. Uh-huh. ñun duñ suñ suñ ngëm-ngëm ne li ñuy def mission la te mission nag mooy su la ko yàlla joxee da nga ko war setal setal. Hmm. waaw looloo tax li ci diaspora juddu looloo tax rajo Defaral suñu bopp juddu. looloo tax ñuy jógee Milan di ñëw Brescia di ñëw di def émission beeg yéen. jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga jot a indi kon nu mu ko waxee rek mbokk yi ñu moytu dóorkat yi bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. lépp nag lu jëm si sénatoria boobu comme ni mu ko waxee rek ak. Euh, bu fekkee taxawal nañ ko ak nu mu war a demee rek dinañu toogaat fii gën ko jaatal euh, man ak moom laata nag ñuy dugg ci ponk bu mujj bi euh, jëm nag ci euh, suñu mbokk sénégalaise boobu nekk Agrigento te yoroo fa restaurant te at bee ñu génn mu gañe woon concours toggub cere fii ci réewum Italie gañe waat na beneen raaya démb ca benn concours togg concours gi nag benn canal de télévision bu ñuy wax TV8 moom moo ko organisé woon na moom nag mu sekkoon ko ak ñaar fukk ci ay ay toggkat natt ay chef nuñ koy euh mu melni né eh, mo ngi n'a que di di wéy di gagner ay raay fi ci ci ci réewum Italie. Ah, tout à fait euh, Marème Cissé effectivement waxoon nañ ko fi fi ci li ci diaspora fon naa première émission ça si si ci lañ ci waxoon. Mhm. mu gagner won meilleur. Euh, couscous couscous euh, du monde. de la coupe du monde de cus de préparation du couscous. Mhm. ah bi nak mu ñoo ñaarale ko en réalité affaire bi TV8 Milan la nek quoi Milan la euh, mm. Agri Gento la nekk. mais concours bi ñu ko do def Milan. Mm-hmm. Euh, mu gagné ko -hmm. muy la meilleure chef étrangère. muy le le meilleur la meilleure bon. cuisinière la meilleure cuisine ethnique. exactement du monde mm-hmm. en Italie. Mm-hmm. nga xam étranger chef étranger yi -hmm. euh ñu def concours. mu dem ci finaal ba démb final bi la woon mu gagné ko. di wax ne wax dëgg yàlla euh, moom Marème ku jàmbaar la te par rapport ak suñu wax bu njëkk bi euh, daf ko indi moom mu koy doxal maanaam lañ jëlee suñu réew na lañ fexe ñëw boole ko ci réew mi ba mu neex waa réew mi. bokk ci patrimoine dëkk bi. bokk ci parce que na nga ko jëlee ci réew mi du noonu nga koy sottee. Uh-huh. ceebu jën na mu ko nañ koy na mu ko toggee. da nga xam ne lii ceebu jën la mais nañ koy toggee suñu réew toggeewu ko noonu moom la moo ceebu jën moom la présenté en demi-finale ba gagné ko. Mhm. Euh, démb mu defar. gagné gagné réewum France je pense. ci demi-finale réewum France waaw ci demi-finale <laughs> ba. waaw ci demi-finale ba finale mu ñëw moo taseeg benn chinoise indi première plat bi mu ne cere ak jën cere ak cere ak ñeexu jën moom la njëkk a présenté. Mhm. mais cere boobu soo ko xoolee.

ba noppi euh, niñ koy présenter artistiquement moom noonu mu koy présenter ba noppi nag créer ci nag ay produits ci dëkk ba mu dëkk muy Sicile ku xam Sicile xam ne dañoo bëri ay ingrédients. ah c'est un pays de la Méditerranée cuisine méditerranéenne moom lañ euh, foofu la Sicile mu boole ko cuisine tropicale muy cuisine sénégalaise mu def ci nag gëstu ak liggéey bu métti. daanaka benn mix la quoi. benn mix waaw waaw mhm. mooy.

Euh, xam nga invité nañu foon sax ñun. <laughs> waaw waroon nañ fa dem <laughs> waroon nañ dem waroon dem Agri Gento c'est vrai. Ah, sori na xam naa ne mais dañ koy préparé. Uh-huh. Euh, nee na mois de le huit euh, prochain huit février dina ñëw Milan participer ci ci benn foir muy le foire du la foire du tourisme. d'accord tey te ci boobaa ñàkkul ne dinañ ko rencontrer. dinañ mun a jokkook ak moom defar ay waxtaan ak moom. directement waaw loolu donc wax dëgg yàlla léegi xam nga. communauté euh, lu moom su ko toppatoo rek day am njëriñ. Mhm. parce que démb bi mu gagné ay ñu yoré cuisine sénégalaise dañ ma oo ne ma lii dina tax nit ñi gën bëgg suñ cuisine. dëgg la. malheureusement cuisine sénégalaise tey dafa waroon am boom bu mag ci Italie mais suñu wax cuisine sénégalaise du du cuisine sénégalaise pour les sénégalais Madame...

non un restaurant sénégalais. pour les sénégalais seulement sénégalais. Mm-hmm. kooku su ma yemoonee passion la moom la ñuy wax passion Sénégal mais nag il faut que tey vraiment dafa waroon am boom ni cuisine chinoise cuisine chinois yi jëlee la restaurant la restauration. Mm-hmm. mais du ut. bañ nañ ko ba léegi chinois yi duñ sax cuisine chinoise ci seen restaurant yi. daanaka moom ginger and food di tour restaurant ba mu am Agrigento restaurant de renommée le restaurant bu bu am doole la foofu. bu am doole léegi de renommée. Ah. ay tubaab ñoo fay lekk. ñoo koy fees. Ah. surtout nag mu mu mu créé le prix de la meilleure cuisine étrangère en Italie mu gagné ko te muy cuisine sénégalaise loolu wax dëgg yàlla dafa war a jàppale cuisine sénégalaise. Hmm. loolu luy lance cuisine sénégalaise te nag wax dëgg yàlla la cuisine sénégalaise elle est très riche. Nous ñoo ko xamul xamul ci ingrédients te mën ko exporter Ce kuy wax exporter c'est des devises pour notre pays les ingrédients sénégalais euh, sont divers yu ñu parce que nous avons ngi ñu qui koy waxee nee ay jumbo koy utiliser day utiliser ay saf-safal yoo xam suñuy maam ñoo fi lay ci hmm. naturel bio. waaw bio naturel bio parce que la cuisine sénégalaise aussi c'est une cuisine bio. Mhm. waaw cuisine bio là mais d'ailleurs dem ba tu y ci yoo xam wax tout est chimique tout est chimique dafa appauvrir euh, la cuisine sénégalaise ramener voir wax fay nga sant ma sant Diouf <laughs> xam naa ne seneen yi ak ngomeen yi dinañu tooñ. non dama lay bàyyi rek nga gën a. <laughs> nga gën a retravaillé waat mbaxalu Saalum ay mbaxalu Saalum ak yooyu daal yëpp war nañ ko génne. waaw génne ko waaw <laughs> ay waaw ay mbaxalu Saalum ay dëxin ak yooyu. voilà exactement bon. Euh, euh, ci culture la bokk du ci lekk rek du feesal biir. Mm. comme ni mais ci suñ culture la bokk. Mm. donc dañ cee war a dañ ko war di ko liggéey te nii tey succès bi Marème am. presque beaucoup de restaurants sénégalais de qualité de waroon am ci mais pas restaurant sénégalais pour des sénégalais parce que le public le target moy <laughs> ñi nga xam train ñoo soxla lek ay italien te italien ñep xam nañ restaurant dañ ko ça, effectivement donc ni sommes non mu ubi Agrigento ne fexé ñew ubi restaurant Milan am na sax yeneen sénégalais yu am restaurant. waaw mais est ce que ñooñu tam mënuñu jéem a euh, ñu ñu am contact ak moom jéem a xool tamit nan la ñu gën a améliorer seen seen seen liggéey gën a am ouverture. am mus ko fi wax ne. Euh, euh, le ministère euh, de l'agriculture ou le ministère de la culture moom suñu mission. dañoo créé wuñ benn dynamique boo xam ne day développer la culture et par conséquent l'économie sénégalaise parce que dañoo am ay yu baax yoo xam ne gisuñ benn politique bu ko encadré. wala bu koy impulsé mu la cuisine mais aussi muy la coiffure sénégalaise. <laughs> suñ jigéen yi létt ci àddina bi kenn xamul nan lañ toll. ba mais ñàkk encadrement ba tax mu ngi ñàkk fayda. je pense qu'il y a des industries euh, culturelles sénégalaises en matière de coiffure aux États-Unis. Mm-hmm. Am na ay femmes yoo am ay chaînes de salons de coiffure. Euh, fi aussi am na ay léttkat léegi nag cuisine sénégalaise dañ ko war aussi mu am le gouvernement du Sénégal loolu moom moo am parce que da ngay gis Italie barki démb dégg naa ñu ngi doon wax centre culturel mais dégg naa démb bërki démb ñu ngi doon inauguré centre culturel italien si si parce que business des affaires étrangères me foon en tourné ñu ngi doon inauguré centre culturel italien mooy lañ doon wax rek dañoo war créer centre culturel sénégalais parce que day impulser la culture et ku impulser culture impulser économie. donc nan lañ mën pour que l'économie sénégalaise du pétrole ba feeñ rek wala gaz ba la jam jo xawma mais culture sénégalaise doit war a ak lobbying économique bu koy jàppale buy tax muy exploser parce que so waxé cuisine sénégalaise rek moy wax agriculture sénégalaise moy wax nga produit typiquement sénégalais moy wax aussi le savoir-faire sénégalais. té ci cuisine ak ci secteur coiffure dañ ci wara créer amna ben savoir-faire buñu suñu deful dañ koy té duñu amal njëriñ. ba ñeneen koy jël ko développé ñu naan ko ndax am lii Sénégal. jërëjëf Baye Diouf euh, ci leeral yi ngeen di ci ponk yi ñu faram-fàccee tey ci seen émission euh, li ci euh, diaspora bi di ko gërëm comme saa su nekk rek ni mu koy defee. di leen fàttaliku rek ne émission bi mun ngeen ko am en podcast si rajo defaral suñu bopp en semaine Baye Diouf aussi pàcc bu ci nekk ci émission bi dina defaat rediffusion bi ci ay plateforme ci ay page Facebook am. di ko gërëm di ko sant bu baax euh, di ko wax rek euh, lan lay tàggoog mbokku téléspectateurs yi ñuy euh, seetaan. waaw jërëjëf Augustin jërëjëf mbokki Diaspora Vision ak rajo defaral suñu bopp wax dëgg yàlla tey émission bi su ma yeboo ne émission yi ma gën a neex la bokk. Mhm. surtout nag audio vidéo bi C'est Sidi Ka di waxe wax deug yalla dafa am importance te man sax duñ ko rek mhm. parce que dañuy wax mu ngi du intellectuel mhm. intellectuel intellectuel sénégalais nekul intellectuel bi nga dafa wala dafa intellectuel sénégalais moy intellectuel sénégalais bi nga culture Sénégal Sénégal ak xam-xam bi Sénégal. te wax dëgg yàlla euh, audio bi suma vidéo bi suma ma sañoon ñu fësal ko Sénégalais yépp seetaan ko au Sénégal. Mhm. parce que moom dafa wax loo xam ne tey yeneen sénégalais yi suñ ko waxee dañ leen di dal ci seen kaw te ku dem ba jox ba wax ci vidéo wax la pensée la philosophie xalif général des mourides. ci mbirum pédagogie dans le daayira dans les daara wax dëgg yàlla loolu dafa tax problème fitna bi ñu naroon am ci njàngal alxuraan yëpp dañ que xale dañ koy suqali duñ koy suqal mais pas bañ koo bañ koo gaañ donc maa ngi koy gërëm di gërëm di gërëm ñëpp ñi ñuy seetaan di di wax yàlla na yàlla dàq fitna Sénégal mais yàlla na ko yàlla dàq tamit ci suñ communauté bi nekk fii ci Italie. jërëjëf Baye Diouf di gërëm it ki nga xam ne moo nekkoon euh, ci wàllu machine yi ci xarale gi di euh, Alioune Ngoti Mbaye di leen jox nag dig daje beneen ayu bés ak yeneen thème yi nga xam ne rek soxal na diaspora bi euh, jërë ngeen jëf.